donc ci ay tas tension li fi jotona am ay bakkan yu rot ak yu ni mel. Hmm. ñu ne cour des comptes amul prérogative seetal Mame Mbaye Niang seetal Mame Mbaye Niang mais cour des comptes amna prérogative tuumal Mame Mbaye Niang. am ñu euh, amul ben rapport bu ko mëna a non non dama ne cour des comptes amna prérogative guéné rapport bu tuumal Mame Mbaye Niang mais amul prérogative am rapport bu seetal Mame Mbaye Niang. ba on est dans quel pays c'est-à-dire que les gens qui parlent ne réfléchissent même pas épinglé lu e. e, le secrétaire général du PASTEF <laughs> en temps de l'opposition Ousmane Sonko qui a brandi son téléphone devant tous les Sénégalais et le monde entier mm-hmm. que j'ai un rapport de 29 milliards qui a épinglé Mame sur l'affaire Prodac mm-hmm. et j'ai toutes les preuves ñu au tribunal ñaata nit trois personnes mm-hmm. ñu au tribunal kan moo ci dee kan moo ci dugg kaso tribunal ñaata jour toujours xëyul ñu au tribunal trois fois le même tribunal est-ce que am jakarta bu minuit lay 6 heures du matin minuit ba 6 heures du matin lañ koy interdire. Chaque mhm. chaque yeeg livré économie bloqué wul. ñaata jour lañ tëj école yi. élève yi jàngi wuñ élèves lan mo tax tay Bassirou Diomaye Faye nek président de la République Ousmane Sonko nekul président de la République parce qu'on a invalidé la candidature de Ousmane Sonko à cause de la diffamation sur Mame Mbaye Niang mhm. bi 6 mois avec sursis avec 200 millions d'amende mhm. C'est Ousmane Sonko là aujourd'hui c'est notre chef du gouvernement c'est notre premier ministre et le rapport qui est sorti muy rapport définitif xam nga sénégalais moy mooy li may wax duñu ñu <coughs> Cheikh Yérim Seck dafa tok ci plateau 7TV wax len ko ne leen balaa ngay wax rapport épingle nga mhm. da ngay xaar ba rapport définitif guen tay sar man na fi baña nek nek nekk Allemagne mhm. yónni fi nit ne ko demal saytul ma diaspora news lu fa nek mhm. koku day ñew enquête ki enquête ki joxe ben rapport amna na keneen kuy ñew saytuwaat rapport boobu méngale koog factures yi. Mhm. tey dañuy ñëw ci Fama Fama ne jënd naa micro temps jënd naa caméra temps jënd naa nangam jënd naa nangam loolu rek lay wax. Mhm. kooku day ñëwaat dem ci ki nga xamante ne mooy comptable bi mu jox ko factures yi xool bon de commande yi ndax méngoon kooku su paree ñu dem ci financier bi xool ko ndax génne na xaalis suñu paree ñi jël facture yi ngeen joxe ñu def comparaison ci marché bi caméra bi tey soo ma nee deux millions koy jëndee léegi-léegi su ma demee Google tàppe Télévo carte dina ma jox équivalent bi mhm. ma ci année bi ko jënd. ñu méngale ko ba pare ñu xool ndax am différence par rapport wala amul différence ci lay rapport définitif du soog a je crois que rapport bi war a épinglé wala ñaar anglais mi ngi janvier 2024 mhm. donc képp ku newoon rapport am na avant janvier 2024 waxoo dëgg y avait pas de rapport y avait des pré-rapports y avait des déclarations y avait des choses mooy li may wax sénégalais ils n'ont pas compris comment fonctionne le travail de l'IGE xamuñu naka la OFNAC di liggéeyam di def man bi loolu amee mhm. soo gisee ma njëkk défendre ma Mbaye Niang dama rapproché wu ci OFNAC man leen mais rapport naka lañ koy guéné ak nangam ils m'ont expliqué tout ñu ne ma rapport bala rapport diam muy épingle nangam day xaar ba rapport définitif génn rapport définitif boobu moy dernier rapport bo xamante soit mo lay mal, soit mo lay setal mais leneen luñ la wax ci rapport xamal ni loolu du dëgg dañu nekk ci ay VR gaay yi di dafa mel ni procès verbal. Mhm. nga dem léegi léegi police ñu am benn procès verbal rek ñu daal di koy fuute nga génneeku alors que eggoo ci juge bi xam nga tey suñu la jàppee police nga jëm. Mhm. ñu defal la procès verbal procès verbal boobu la ñuy transférer juge bi avant juge bi di décider condamné nañ la wala acquitté nañ la léegi yow police ngay génn ñun la condamné na sàcc nga. Mhm. loolu moo leen dal te dama yàgg taxaw ci plateau yi man leen diw ñu ne ma naan man leen amul mbindeef bu mën a génnee rapport bu épinglé ma Mbaye Niang sur vingt milliards parce que c' est faux c' est archi faux et ce sera toujours faux man dama am xel damay réfléchir mhm. Fama. waaw. <laughs> topp ma rek naan ma. Faama ak Ana man Faama laa bind sa numéro moo tax dama leen jox benn exemple ngeen xalaat. Prodac benn projet la boo xamante ni dafa nekkoon ci biir ministère du tourisme pour liggéey projet bi yëpp budget bi vingt neuf milliards. projet bi doxal nañ ko ba un tiers bi jàll na yaa ngi may dégg léegi suñ la nee diw lekk na vingt neuf milliards mun mu ne ne. kon lu jàllale un yi. lu jàllale un tiers yi xanaa bokkul ci vingt neuf milliards. su ma la joxee dix mille man la toggal ma ceebu jën. Mhm. nga jël dix mille yi dem marché. jënd ceeb jënd diwlin jënd lépp. desul lu dul jënd gaz. Mhm. gisuma ceebu jën. ma ñëw ma ne faama lekk na dix mille yi. defarul dara ci ceebu jën. non faama jën na jën jënd na diw jënd na nangam. kon donc foofu la sénégalais yi waroon xam ne que vingt neuf milliards amul projet totalu Prodac vingt neuf milliards la. léegi yow naka lañ lay joxee vingt neuf milliards pour projet bi nga jël projet bi xaalis def ko sa poste maanaam mbay ñaar doful c'est-à-dire que gis nga sénégalais yi foog ñu yeewu di déglu c'était justement des détails yoo xamante ne ay révélations pour mettre en mal le peuple parce que ki leen accusé woon démb dafa ne woon am na rapport moom loolu la waxoon nee na su ko yóbbee dañ koy naan recel de document kan moo koy wax état Macky Sall léegi état Macky Sall nekku fa lenn laa koy ñaan en tant que premier ministre rapport bu mu soxla da ko am léegi rapport bi ne woon ci téléphone

te lu ma ci jaaxal journaliste yi toppoon Mame Mbaye Niang sàcc la sàcc la quand la cour de cour des bu mu génnee rapport am ñoom ñëpp ñu croiser seen bras donc ce qui montre que ils étaient na benn journal bu benn rapport mënut a setal euh, ki nga xam ne moom mooy. Euh, fan la ko teg léegi na wax fu ko teg <laughs> journal boobu ça veut na wax fan la ko teg ki la ki ki woon. moo ne rapport cour des comptes moo ko épinglé. Mhm. cour des comptes moom la ñu sant muy IGE di IGF. ñoom ñoo war a vérifier ñoom ñoo saytu gis ni ni que mambay Mbaye Niang bii kat saqeewul laalewul te nee naa leen mambay Mbaye bi ñu koy wax saqeewul laalewul sa à dire xam nga les gens ce qui ne comprennent lan mooy Prodac mm-hmm. xamuñu sax projet bi nu mu demee tey saar mi ngi Allemagne mm-hmm. tey yow la def directrice yow yaa fi nekk xëy na moom mooy administrateur général kër gi yëpp yow la doon directrice yow yaay wax ay publicité yow yaay encaissé nangam yow tey soo demee encaissé ji ay publicité ñun la publicité yi nga encaissé encaissé nga dix publicité am nga ci dix millions. Mhm. dix millions yooyu defar ci euh, bureau bi nangam yow soo lekkee xaalis boobu lu si yoonu Sarr Sarr la ñuy épinglé. déedéet Fatou dañuy épinglé. bii kay man mi ko lekk la ñu war a wax. loolu la ñu war a xam Mame Mbaye Niang signé wul dara ci lu jëm ci dossier Prodac.

rapport bi soog a génn. mënoon na génn ci jamonoy Macky Sall ñu ne ñoom ñoo ko formaté. effectivement te xam nga lu ko raboon ci àdduna. tuumaal nit Ousmane Sonko dafa am leen lu ma jàngal ma dégg ko ci benn vidéo nee na balaa ngay tuumaal doomu aadama. na fekk nga téye say preuve mu leer la nañ ko kii li ma koy waxal dëgg la mhm. nee na jullit du tuumaal moromu doomu aadama alors que amul lu ko ci leer Ousmane Sonko tey tuumal na Mame Mbaye yàq na deram fii si Sénégal ay nitu Ousmane Sonko jël foto Mame Mbaye di ko taf ci réseaux sociaux yi ba keroog mambay ñaa di am ay sët vidéo yooyu dina génn kon Ousmane Sonko na woo Mame Mbaye Niang publiquement mu daal di koy baalo àq parce que rapport des cours des comptes setal na koy mhm. gis nga tooñ baaxul lu dëgg du yàgg mhm. tey nag yaakaar naa ni lii ñun dañ ci war a jàng yàlla moo leelal mbir mi lu tax yàlla def Bassirou Diomaye Faye président deful Ousmane Sonko président. parce que condamnation bi mu am. ci déedéet kan moo porté woon projet bi. moom kan moo tëdd kaso. kan moo woote gasta gasta. Ousmane Sonko li mu daj ci projet bi est-ce que Bassirou Diomaye Faye daj na ko. est-ce que Biram li li Biram Souleye Diop daj Bassirou Diomaye Faye daju ko li El Malick Ndiaye daj Biram Bassirou Diomaye Faye daju ko mais yàlla mooy xool li muy def. gis nga tooñ boobu mu tooñ Mame Mbaye Niang amaana loolu moo tax yàlla xañ ko ko jël Bassirou Diomaye Faye jox ko ko mois ci ginnaaw ku la ne woon Fama Bassirou Diomaye Faye mooy doon président de la République du Sénégal nga rey sa bopp nga ne mënul nekk tey Ousmane Sonko naa leen moom ci boppam dina toog ay famem toog du ñu nelaw du ñu gëm du ñu comprendre affaire yàlla moo mën a def mbir mi moo tax bërki ne ba leen gisee conseil des ministres Bassirou Diomaye Faye toog mu toog après j'ai regardé ñaari président la ñam wala benn président mais moom nee na Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko mais est que bi nga demee ci bulletin yi di jël da nga fa fekk bulletin boo xamante ne dañ ci bind Diomaye Faye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye c'est-à-dire il faut que vous soyez raisonnable bi ngay bi nga nee na ñaari président déglu ma xam nga bi ngay jël bulletin da nga fekk bulletin Bassirou Diomaye fay mhm. ci fiche bi nga xamante ni moom la ñu inscrire Bassirou Diomaye Faye